asalaamaaleykum bokki Kër Moussa maa leen di nuyu di jaarale nuyo bi ci suñu chaîne bi nga xamante moom la Moussa info di nuyu toute la population de Kër Moussa di profité aussi ci occasion bi ci ñaari communauté yi nga xamné ne dafa dogal ren ji carême bi ak ramadan bi tase di euh, euh, souhaiter euh, bon carême et bon ramadan ñaan yalla yalla may ñu yàgg ko fekke merci beaucoup merci vraiment rawatina sénégalais yëpp mais euh, commune keur Moussa ndax bo gisee sax ma bolé ci sénégalais yëpp moy xamna né ne KM info jéggi na biir commune keur Moussa partout dañ koy sétane donc euh, di de ci occasion bi nga xamné ci la campagne électorale ba ñu remercier tous les militants yi nga xamante ñu ngi nekk ci Benno Bokk euh, ñi nga xamné ño nekk fi ci commune keur Moussa ndax gis engouement bi pour preuve

au lieu nga présenter leen kan mooy Amadou Ba mais ñoom ñoo lay présenter kan mooy amadu Ba vraiment li nga xamante ne gis nañ ko ci population bi euh, ci fi ma jaar yépp ba fas yéenee terminé tey vraiment man gis naa ne seen liggéey def nañ moom population bi ñoo ñu gën a facilité li sax liggéey bi ndax comme ni ma la ko waxee léegi foo yegg boo fa yeggee nga war leen présenter sa programme war leen wax kan mooy amadu Ba ñoom ñoo lay wax kan mooy amadu Ba. waaw qui yi m'a yëkkati mooy daan wax toujours mooy nañ ci ànd dal xam ne yi day ñun ñu fi toujours suñu chaque fois que élection am ngeen ñëw fii la ma leen doon wax yaakaar naa ba léegi dara dañagu ci yi dimanche la mais le lendemain képp koo xam ne am nga soxla fii ci biir commune bi ma fekk sama bureau incha allah ngi ñaan buñ ma fiy fekk fekk sama candidat bi muy le président Amadouba, Ba gagné élection dès le premier tour loolu mooy li nga xamante ne sama ci euh, ñaan comme ni kii le bon choix kii mooy tànneef bi jàpp nañu ne li ñu bëgg réew mi émerger ko ki moko mëna agali a moko mëna def te it damay faral di wax toujours te fuma dem wax naa élection yi du élection député du élection maire élection présidentielle ñi koy représenter dañu wara nek nit ñoo ne mën représenter le Sénégal sur le plan international je ne dis pas sur le plan national mais sur le plan international donc buñu joom bu ñu jaawaatle ba di fi teg ñoo xamante ne leer na nit ñi ne sur le plan international waxuma la sax euh, national amuñu fa benn màppandoo te loolu dafay nekk erreur boo xamante ne ci réew mi du ñu xam fan la ñuy mën a jëmee moo tax ñu ngi ñaan peuple sénégalais ñu gën a yeewu te xam naa ne nag jàpp nañ ne nit ci yeewuñu mais yeewuñu ndax man dugg naa koñ bu ne ci àll bi wax naa ko léegi ci samay biir yi wax soo demee au lieu nga di leen wax kan mooy amadu Ba ñoom ñoo lay wax kan mooy amadu Ba bon loolu tekki na ne nit ñi bàyyee nañu xel euh, euh, enjeu yi nga xam ne moom la élection yi am ndax réew ci boppam réewum Sénégal nga xam ne yaakaar nañ fi pétrole yaakaar fi gaz yaakaar fi leneen ak leneen moom lañu ñu war a yëkkati teg ko ci loxo benn nit mais nit kooku kan la war a mën a doon jàpp naa ne mënul wees Amadou Ba mii voilà de carte bi mom carte bi changer mo nek ni mo marron beige yore bop ak photo Amadou Ba Qui mom mis à ne eh, rek mo fi fasu naaru gor bi nga gis nga ne gor xam ci mom moy raw moy raw may ñaan nañu au premier tour ñu xëy leen di dem liggéeyi réew mi ne ci jàmm. xam nga moom ñëwagul mu am lu mu def te ñëwagul ñun ñu ko fi toogal itam leer na ñëpp ne ñu ngi lu ñu projet yi nga pour war koo def ci biir commune bi du ci taxaw à 18h inaugurer poste de santé ci et pourtant je projeté aussi à partir le 25 donc le lendemain des élections ma inauguration d'un CM de proximité dans la zone centre numéro 2. C'est pour vous dire que nous sommes élections arrêté après l'élection juste aussi euh, le 31 si je ne m'abuse pas warna poser première pierre construction poste de santé bu donc c'est pour vous dire que nous, Euh, continuité la continuité bi rek comme ni ko président Amadou Ba waxee nekkul loo xamante ne dañu naan li fi nekkoon moo fi nangam ak nangam ni coow def ci bari mais continuité bi mooy li ñu doon liggéey mais dañu continuer di ko liggéey dañu ko dara arrêté wul dara arrêté wul. ñu ngi woo population bi ci jàmm bi su élection yi ñu ngi ci woo koor ku xëdd demal ca bureau yo nga voté ku voté demal toog sa kër ndax nag. Euh, dañu am kilifa gu baax di Serigne Mansour si da doon wax ne élection bu jotee carte ñaar la benn bi demal sànni ko ci urne bi beneen bi mooy sa làmmiñ def ko ci sa poche nga ñëw toog loolu boo ko defee rek jàmm am te loolu rek la ñuy ñaanal ñëpp incha allah. merci yéen itam euh, euh, Kër Moussa Info ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que suñu yëf ngeen ndax man damay wax toujours ne la nga moomal sa bopp bu ko yemaleeg dara ndax lii ñun ñoo ko moomal suñu bopp. donc bon euh, côté boobu aussi ñu leen ciy sant bu baax ci seen taxawaay te fas yéen ni ñu ànd ak yéen ci liggéey bi incha allah di leen jox rendez-vous lundi bu yàlla wala dimanche ci guddi victoire bi bu leeree ngeen ñëw taxaw ñu def beneen déclaration jëme ko ci population bi incha allah merci beaucoup merci